Wagan dudam. Ayi. a grand champion. Anya yabo. Wagan bonam. Anya yabo. Na yitege. Dina den Wa gi jale. Ogar ah. ah. meke ngel ne mboxodof. Mboxodof la ndigil. Xayego. No, ye gam kon dal mak. Yam kam so bit fo xalites. Eh, so bit winna le yit. Wa de winna na def. Dale bo xeke. Je ke ñew nan jom. Mi Moussa Mavrel meke. O ko de king sa O ko sa kala ko am sak meke bagage. Ah, Mo na am bi ko ga ma ga rimem. bila ñom ne mum digan ten kontaan a maak da yaam a paax xëy lemi ɓuta goy comme fulang fa ɓuga goy leyong we lemu caxaan de kontaan am a paax ngoor ke da moƴo saɗa kinoox rek njom refey caaxaan to njom naange ngastel o ngadanga bo rok ten da meen o waay Ngi waaw in jaɓanu na paax waay maxey jega jama paax axa waaw no jeg contente a paax rek yaam waamo bo nawle e a soɓiidaam fo xarites tout a mbudaniidamoyo kon yaaga waagiim o rabdanina vraiment content am paax jegaam contente a paax a paax walahi no njom ne moom wax dëgg fa ne yàlla ka dam bo kene waaga te leel sax bilaay walay caalaay a fela trop no ngoor ke moom kem lay ka den da moƴo ngorgorlu andam ke da mbiya a ngiminoyo a mbugine parce que ñoom refe caaxaan mais ñoom ne xaalis de ya jega xaalis tigi a maya sax a maya sax tigi no in way ngara rabi loolu retour de Boy Diouf retour de Boy Diouf oh, way garandi inshallah rabbi jegeti il ma ñu kontaan wagan aju ko wagan mais ah le retour non ya, mais mais at mais joran ah way gara est-ce que gaji ke man yok taw ni on di rek iya. ya, ah bon eh na mais mais atale de acha way atale papa ah ouais acha jaajeuf jaajeuf merci